c'est que dafa lu nekk ak temps aujourd'hui tey mënoo toog euh, président de la République jël une mesure grave ku xool en vérité donc euh, la les pratique constitutionnelles wala nga dem euh, la charte africaine de la démocratie acte bi mu def dañ koy qualifier de changement anticonstitutionnel de gouvernement dafa am bu charte boobu def de ko changement anticonstitutionnel de gouvernement ci cha ci kii boobu ci euh, chapelet boobu. Mm-hmm. coup d'état militaire ci la bokk. Mm-hmm. li ñu toppee woon Yaya Jammeh parce que ñu ngi koy tuddee foofu donc le refus de donner le pouvoir après la défaite. Mm-hmm. loolu moo tax Nations Unies sax da cee def résolution. 33 37. moo autorisé Union africaine maanaam résolution dafa viser charte boobu la viser. résolution Nations Unies charte boobu la viser. visé wul sax protocole CEDEAO moo taxoon Afrique euh, CEDEAO yóbbu fa ay militaire en Gambie. Mm-hmm. mais même charte boobu moom moo ne révision constitution boo xam day teree def alternance mm-hmm. changement anticonstitutionnel de gouvernement la Sénégal def révision constitutionnelle boo xamante ne dafa stopper le processus de l' alternance parce que dañu doon am Sénégal une pour la première fois li ñu wax une alternance systématique le président en exercice nekkul candidat ñu lu ñu célébrer mm-hmm. léegi nag assemblée nationale ñëw def une réforme constitution boo xam ne dañuy d' accord d' accord parce que bu ñu def réforme bi il faut que le président dañu dañ koy consulter mu joxe avis bu nekkoon ne moom il était véritablement le gardien de la constitution danaa ne cette disposition bu ngeen bëgg a dañ ko def clause d'éternité article 103 man maay nekk initiateur bi cest à que donc dafa nekk en complicité avec le parlement donc pour ñu def cette révision constitutionnelle nga xamante ni dañ koy considérer Ah, donc comme moo stoppé le processus bi nga xam ne moo ñu waroon yóbbu alternance le le le le le cinq février. nga xam ne dañu am passation de de de de de témoin naturellement même bu nekkoon même son candidat moo gagné en tout cas changement politique la. n'est-ce loolu moom mooy leen changement changement anticonstitutionnel dañ ko sanctionné en Afrique maanaam texte yi ko créé li ko créé dañ ne non seulement ñi nga xam ne ñoom ñoo participer ci procesus boobu maanaam élection bii di ñëw bu ñu def restauration de l'ordre ñoom duñ bokk. Benno Bokk Yaakaar PDS et cetera ñoom waruñ élection yooyu buy ñëw loolu la Burkina bi ñu bi ñu defee bi ñu defee euh, bi bi mu amee bu ñu def bu ñu def transition bi ñu dem élection dañoo génne les gens de de Blaise ñaa ne ñoom ñoo nekkoon ci ci autour de ce processus la mm. dañu xool texte bi nag projet Ismaïla Madior xam na ko il le sait très bien mm-hmm. ñeneen ñi nga xam ne jigéen nañ leen xam nañ ko donc c' est un changement anticonstitutionnel beneen bi mooy que le président de la République moom moo jël un décret mhm. inédit ne daa abroger la convocation du corps électoral la convocation du corps électoral compétence liée la du moom mooy neex rek mu def ko parce que article 31 moom moo ne fii la ñu organiser élection mhm. cinq jours à trente jours avant la fin du mandat mandat bi jox ko boppam donc loolu compétence liée la du pouvoir disque du toog rek sañ-sañ rek ne man fii lay def élection. bi mu ko defee boobu la moom itam la pose un acte inédit boo xam ne sax amul maanaam amul amul ci nomenclature bi un acte innommé boo xamante aussi day consacrer li ñuy wax un changement anticonstitutionnel du gouvernement comme li Kabila defoon Kabila bi mu toogee mu tiim une constitution très bien écrite verrouillée xamul fan lay jaar xam moom lan la def. dafa asphyxier la commission électorale xañ leen xaalis xañ leen des moyens d'intervention loolu moo ko tax a toog fu pendant deux ans maanaam moom bi dañoo defoon bi ñu après la crise ñu def les le les les comment dirais les assises congolaises am constitution bu bu bu bind. Kabila père ou Kabila fils. non Kabila non xam nga Kabila bi dañ ko reyoon. mais Kabila fils moom moo nekkoon président. Mm. n'est-ce pas moo def deux mandats yoo xamante ne nii donc mais la limitation des mandats était très bien écrite. Mm. n'est-ce pas. boo xam ne amul fu mu jaar mais pour mu pour mu pour mu toog prolonger dafa asphyxier la commission électorale mm-hmm. président Macky Sall nag il s'arroge justement des jours de plus après la fin de son mandat après de la fin de son pouvoir a ah, donc par son stylo décret c'est inédit amul adduna bi yëpp booy wër fenn musul am militaire dañu ñëw indi ay fusil et cetera donc voilà def coup force ne donc les institutions sont dissoutes. mais mhm. moom daa décidé taxaw décidé ne élection amatul. Mhm. alors que conseil constitutionnel proclamé na la liste des donc la liste donc des candidats. article 92 ne les décisions du conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autres et à toutes les institutions. Mhm. moom la doon layee en 2016 bi mu ne day wàññi mandat conseil constitutionnel jox ko avis. ne ko mënoo wàññi mënoo yokk mu ne les décisions du conseil constitutionnel donc daf s'impose à nous ñu ne leen av ñu ne ko avis la ñu génn leen avis décision la